tàggam nañ na ci côté xam nga ni lii surtout ay tëggkatam nekk ci côté am. loolu la manque d'organisation moo am ci stade bi te lépp CNG la. CNG waaw. parce que tamit lamb ji dafa war a am ay stadiers. Ah. ñi nekk ci kaw tribune bi. Ah. waruñu wàcc parce que maa ngi lay wax sànq ne la mbër mi 15 personnes la ñu ko may. ah kon nan la mbër mi mën a ànd ak 50 personnes. non dafa ëpp. ah. dafa ba léegi ñi ngi sànni 16. ñi ngi sànni 16. ba léegi ñi ngi sànni sees. waaw sànq xoolal xoolal dënd bi. xoolal lii xoolal dënd bi. Papa Sow ba léegi. gis nga dënd waaw xoolal lii lan moo war a toj bopp Papa waar. nañ ko xool jéem koo xool fii nag mooy bëtu askan wi dara du fi réere. dara du fi léere lépp lay leere. waaye booy xool lii waru am mbër mu nekk da wara war a yem xam ne. Ah. waaw. booy bi sol njaxas parce que. sabar bi moo. moo sol ceeb verte bi ceeb verte bi. sabar bi lañ doon papa sax ceeb verte bi bon sabar bi moo ko dal. ñu noonu déedéet sabar bi moo ko dal. sabar bi moo ko dal. sabar bi moo dar papa saw. papa mi ngi cëppi cëppi papa xol bi jeex na. waaw mais bu fekkente ni médecin bi. gis na ne am na ay points de suture. waaw su boobaa dootul bëri. bu médecin moo yor lamb ji fi ñu toll. mu nekk lamb ji mi ngi ci. mi ngi ci loxo médecin bi